atub 2023 2024 njëg gi ñu nar a jëndee kilo gerte bi ci baykat yi ñu ngi ko jàpp ci ñeent fukk ak juróom-ñett waaye daaw ñu ngi ko doon jaayee juróom fukk muy yokk bu toll ci juróom benni dërëm jamono jooje doxantu ci marché bi tax nañu gis ne kilo bi fii ñu ngi koy jaayee en gros 350 francs bu dee détail nag ñu ngi koy jaayee lu ëpp téeméer ak ñeent fukk grossiste bi di yëngu ci filière bi ay at a ngi nii di ñu wax ana lan moo waral prix yooyee dal di utee. marchandise mi ñu yor dafa nekk marchandise moo xam ne dafa libéré parce que da ñëw jënd bi lii tey bu ëllëgee bu manqué ama manqua ñu jaay la ko lii moo tax euh, Dakar prix yi mënuñu fixe parce que fi mu ne gerte ki yor gerteem dikk Dakar bu bu ko naa jaayee 280 Dakar bu dikkee fii jaay ma ko 500 man dama koy jaay 600 wala ma jaay ko 700. jaaykatu détail bi moom Mor Seck lay wuyoo buggule fenn ci caméra bi waaye indil nañu ay leeral. ci produit bi nga xamante ne moom la état di taxé. état gerte bi ñu traité ba pare lay wax mooy gerte bi nu bàcc bees ko séparé ngooñ mi ak gerte gi defar ko ba mu rafet boobu la état jënd mooy comme bi jëm Sonacos ak yeneen entreprise yu muy liggéey ak diwam. bii umpak maanaam ñu ngi ko jëlee ci côté Casamance bi ji frontière Sénégal ak Guinée am na ci yoo xam sax biir Guinée lay génne duggaat Sénégal. yokkuteeb njëgub gerte gi am na nag njeexital. ci yëngu-yëngu soxna si. ñeenti pot yi 3000 francs la. instant ma dem jaayee kaas fukki dërëm du ma si génn. ñu fàttali ne campagne 2021 2022 Sonacos. ñu fàttali ne campagne 2021 2022 Sonacos moom mi nga xam ne mooy defar diwlin ci réew mi dafa bëggoon a stocké juróom benn fukki junni ak juróomi tonne gerte ci boobu boobule campagne lu toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak ñaari junniy tonne la ñu dal di collecté ci Sénégal gi yépp ñu fàttali rek ne Sénégal moo nekk ñetteelu réew bu nga xamante ne dañuy bay gerte ci dendu Afrique ci ginnaaw Nigéria ak Soudan ndax nag at bu yàlla sàkk dafay bay lu ëpp benn million wu tonu gerte